ngeen dem séddoo ko ak cellule de lutte contre la malnutrition ba nekk palais de la république lii laa wax corona business. Mhm. kon nag moom it lu mel noonu la wax rek. keneen ku jël responsabilité am si euh, wàllum gestion Covid bi euh, dafa mel ni comme le général François la gis neen ko aussi mu génn di alerter par rapport ak ay surfacturation yoo xam ne euh, nemmeeku na ko si denrées alimentaires yi. parce que dafa jàpp ne 94 94 milliards de francs CFA yi nga xam ne le président Macky moom la jégle woon li nga xam ne mooy dund bi ko kii nga xam ne mooy euh, Mansour dafa mel ni comme dafa am aussi ay euh, njuuj njaaj bu ci yu si am tey est-ce que président de la République Macky Sall on parle de on parlait de 1000 milliards tey ñuy wax problème oxygène tey ñuy wax wax problème SCTE warul génn euh, sévi wala mu waxal Sénégalais yi carrément ce qui se passe. du def dara xamal tax du def dara président Macky ak moom lu mu mën a def dara du ci dikk nee naa la sànq junj naa ko sànq euh, képp ku ànd ak président mag Sall lu la neex ngay def dara du la ci fekk. kenn du la woo. xëy na nag man li ma jàpp mooy bu dee li ñu yore sunu alal la. amul délai de prescription bis bu ñàkkee nguur gi en deux mille vingt quatre li ma gëm mooy dañ leen a war a woo. man loolu laa gëm. parce que alal ji moomuñu ko. alalu Sénégal dañ ko war a teg ci yoon. kon nag man li ma jàpp mooy loolu mu wax effectivement euh, rafetlu naa ko parce que. 69 milliards. du maanaam 94 milliards. c'est 69 milliards pour les denrées ay caaxaan 69 milliards effectivement lañ joxoon Mansour Faye. c'est 69 milliards léegi nag loolu. ba léegi ne transparence amu ci. Mhm. maanaam teguñ ci loxo sénégalais yi lu leer. Mhm. loo xam ne moom moom la moom la ko dépensé. d'abord ca attribution marché ba. Mhm. la amoon premier problème ñu jël ay ñoo xam ne jaay sandwich mooy seen liggéey. ñu jox leen ñu war a fournir denrées yi alors ko loolu mosuñu def marché bu mel noonu. ñi nga xam ñooy def liggéey boobu. nga xam ne ñu ngi liggéey ci ceeb bi ak di liggéey ci dëwlin ji di liggéey ci yeneen denrées alimentaires yi nga xam loolu mooy seen liggéey di ko importer di jaay sénégalais yi di jaay grossistes yi ñooñu ñu écarté leen parce que loolu rek mooy première acte njombe maanaam moom Mansour Faye dem contracté ak ñoom xam ne kenn xam ne parce que tey jii Sénégal boo nee importateur yu ceeb ñëpp xam nañ leen presque au moins daañu xam ñi ci gën a siiw ñu gën a siiw kenn la joxul marché ñu ñëw ay nit ñëw ni ko dama lay transporter ceeb bi fi nga koy yóbbu ci askan wi région bu mu mën a doon ñoom transporteurs yi seen association ñëw ni suñuy oto ngi nii fayee fayeekun la dërëm chauffeur baa ngi nii solal ko carburant ngeen ni ko demal pour dem yàpp mu yàpp région bu ngeen ko xam mu yóbbu waay waay waay njàpp mun leen bugguma da ngeen maa ñëw dimbali pour gratuitement defuma loolu damay dem contracté ak koo xam dama koy fay loolu du corona business mm. parce que boo contracté am ci say part alors que bu doon ñoom la du ci am dara kon nag loolu lépp bu fi amee wax dëgg yàlla man euh, bu ñu fi nekkee sax ñun sénégalais yi di sikki sàkk ci ndax alal ji dañ ko pasar pasaree def ci lu leen neex mais loolu amul sikki sàkk man loolu laa mos a wax te loolu laa gëm ci tappale lañ nekk liñ ji wax ni moom lañ dépensé ci feebar bi ci Sénégal lañ wax demewul noonu parce que alal ji ñu wax génnul moo tax sénégalais yi sonnoon lool. moo tax bi ñu leen tëjee ñu dem ba xiif di leen bëgg a rey ci réew moo xam ne naa ñu ëpp ñoom dañuy gobar jaas yi bu ñu añee dañu reer wala dañuy tibb dañuy añ tibb ci reer. mais réew mu mel noonu boo leen tëjee dañuy taxaw xeex ak yow moo tax président Macky Sall ñu koy digal ne ko na tëj Sénégalais yi mais yàlla na ko def xamul tax man jàpp naa ni mu def ko sax ce serait bien parce que bu boobaa nag lay xam ne peuple bi pare nañ ci moom donc man li ma gëm mooy sénégalais yi nga xam déjà ñi ngi ci promiscuité bu metti boo demee ci banlieue bi même boo leen tëjee ña nga nekk di dajaloo parce que ñoom dajaloo lañu nekk chaque jour bokkuñu ak Europe Europe famille nucléaire mhm. maanaam kër goo dem ñaari nit ñetti nit kon ñoom bu ñu leen séparé te ñoom amuñu culture di duggalante ci kër yi Europe même boo bëggee waxtaan ak nit lu ci ëpp da di dajee quelque part dans un café wala ci benn restaurant mhm. wala quelque part mais ñun dama naan jàpp bu ngoonee naa la seet <laughs> nga daal di diw ni la kon nag naawoo diw mu ñëw fekke ko uh-huh. ñun loolu lan xam maanaam ñun dajaloo ñun culture dajaloo xoolal njàpp même bu ñu tëjee uh-huh. dañuy dajaloo parce que ñun ci kër yi dèjà dajaloo kër goo dugg uh-huh. macha allah lu ma gàtt gàtt fukki nit a nga fa wala fukki nit ak juróom <laughs> dajaloo la alors que ñoom tubaab yi xamuñu loolu kon ñoom boo bëggee xeexee mbas mi na ko tubaab yi xeexe mais du dem moo tax man la man c'est pas parce que c'est des scientifiques que li ñuy wax dañ koy joxe fii biñ ñu tëjee mais ñëpp gis euh, gi nit ñuy xëccoo ci bus mm. dem ful te nee nañ dajaloo yokk feebar bi loolu amul Europe <laughs> donc moo tax man la ñun ni ñuy xeexe mbas mi bu ñu bëggee copier lépp lu France def wala lu Europe def de manière générale ñun def ko dañuy lajj moo tax ma ne la les scientifiques là yi koy gëmloo ni ko mën na tëj sénégalais yi mais na tëj ba xam ba xool la ko ciy fekk. coronavirus ñëw na bouleverse lépp mais aussi euh, bouleverse na aussi euh, fonctionnement si wàllum diine dañu gis ne carrément depuis daaw euh, ñu ñenn si kër diine yi sax dañoo rek annuler seen ay jotaayu diine mais démb dañoo gis ne Touba dëkk bu sell bi amal neen seen journée récital xasaayit di préparer li nga xam ne mooy màggal de Touba on dirait ñoom ils sont toujours dans le logique grande dame. waaw ñu ngi seen logique te man maa ngi ci sant bu baax sëñ Mountakha Mbacké Bachir di nuyuwaale nag xalif généraux yi nekk ci Sénégal yëpp di profité sax di jaale suñu ñaari xalif généraux yi nga xam si ñoom ñoo génn àdduna euh, di leen ñaanal euh, bu ñu yeggee fa ñu dem mhm. yàlla euh, fay leen lépp dañ fi liggéey lu baax allahumma amiin seen i maam teeru leen mhm. te yàlla xaare leen àjjanay firdawsi mhm. maintenant à part loolu li ma bëgg a wax mooy. man kontaan naa ci décision bi sëñ Mountakha Mountakha Mbacké Bachir euh, def mooy maanaam euh, waajal euh, màggala Touba mais avant loolu ci waajal gi mu woote ñu jàng xasida sëñ Touba yi nga xam ni njëriñ dong nga ci nekk. parce que nit boo jaaxlee te ngay jullit. dangay delluwaat ci yàlla subhaanahu wa te xasida sëñ Touba yi moom. ñaanal nit ñi dong moo ko tax a jóg euh, defar nit ñi dong moo ko tax a jóg kon boo demee toog euh, ñu jàng xasida yi euh, ñëpp tàllal loxo ñu ñaan moom xalif bi mu ñu amal jàpp naa ne loolu ñëpp ko war a rafetlu yal yàlla def lépp lim fa ñaan mu wisaare ko ci Sénégal ba mu mbas mi parce que jafe-jafe yi bari na Sénégal même bu dul mbas mi mhm. kon man jàpp naa ne dama koy rafetlu mhm. damay rafetlu li li nga xam ni Euh, Touba ñu ngi koy taxawee depuis mbas mi dugg man maa ngi koy rafetlu man Dame Mbodj xamul tax. ah bon ah maa ngi koy rafetlu parce que xamul tax man li ma gëm mooy mbas mi xeex diine da cee bokk. Hmm. loolu laa gëm man Dame xeex diine dafa nekk ci biir mbas mi nekk ci biir programme agenda nouvel ordre mondial xeex diine maanaam c'est-à-dire boo xam ne yi bu ñu leen di loo xam ni peut-être seen gëstu àggu ca dañu mun comprendre mais aujourd'hui les Illuminati xam nañu bëgg. Mhm. tout ce qui élève l'homme à la spiritualité ñu xeex ko ba dootul am ñoom bu ñu sañoon. dañuy màbbal lépp luy ngëm-ngëm. te boo xasee wax lépp luy ngëm-ngëm mooy lépp luy diine. Mhm. te comme sunu tarixa yii dëgëral diine ji moo leen tax a jóg. kon jàpp naa ne seen mun taxaa vision bu rëy la am ci le fait mu ne moom màggal gi da koy def. Mhm. parce que am nañu non est-ce que ce que amu ci. Tuubaa li mu des de mooy incha allah dañuy màggal. comme nañ màggale woon daaw du màggal na est-ce que biñ màggalee daaw kaay daa yokk kan moo fi gis benn cas bu yokk daaw Touba. Mhm. du Touba dañ ko doon cité ci yi ëpp ci feebar bi. ci bi mbas mi duggee en en en mars deux mille vingt n'est-ce pas du Touba dañ ko daan cité mos ngaa gis benn bulletin bu waa à l'époque te cité wuñ ci Touba. Mhm. ñu joxe kaawu Touba yi n'est-ce pas. Mhm. waa léegi biñ màggalee ba pare dégg nga benn cas bu yokk. Touba xam nga amul woon benn cas yokk. waaw léegi kon kay luy tee ñu comme ñun daaw màggal nañ ca ca ca jàmm ak salaam. benn cas yokkul. au contraire sa période boobu dañoo gis ni cas yi daa wàññeekoon après màggal gi ba nit naan nañ xaar 14 jours ñu dem romb 14 jours cas yi yokkul kon nag man jàpp naa ni ren tamit incha allah man de màggali woon naa daaw te maa ngi ñaan yàlla. incha allah yàlla may ma wér gu yaram. ah bañ a màggale incha allah dañuy màggale <laughs> waaw incha allah ñu ngi ñaan yàlla may ñu wér gu yaram. Mm-hmm. ñu dem màggali Touba incha allah parce que ñun jàpp nañ dem euh, màggale Touba. moom mooy sunu devoir parce que ñun foofa Touba defuñu fa leneen dul dem jàngi xasida nga dem toog ñu jàng xasida ñu ñaan ñu ñaan yàlla indi xéewal Sénégal ak jàmm Sénégal ak fegu ci li nga xam ne moom mooy pexey noon yi ak ces illuminati yi nga xam dañoo jóg pour yàq àdduna bi kon nag man jàpp naa ne loolu lu nit ñi war a rafetlu la di ñaanal sëñ Muntaxa jëmm ji nga xam ne yërmande kese la yàlla jàppale ko ba mu yàlla gën koo fulal ay atam mu yàgg fi lool Mbàkke dinu ñaanal maa ngi ciy profité nag di nuyu sëñ euh, sëñ Abdou Samad Mbàkke euh, moom it euh, sëñ Chouaïbou nga xam ni sama wëllëre la di ma defal teraanga ju ne barki démb rek la ma defalati teraanga ju rëy donc maa ngi ko ciy sant bu wér a wér di ko wax ne daal Mbàkke ah. ñoo ngi waajal màggal gi incha allah bu ñëwee toog ci wetam ak xam-xam bu bari bi macha allah ak tabe gi bu ko defee nag sukk comme nañ ko daan defee daal koy ziar ñun jàpp nañ ne daal màggal gi moom incha allah na ko ñëpp waajal ndaxte màggal gi ñëpp ko moom Sénégal ak bitim réew ñëpp bu ko defee ñu dem màggale ci kàttanu yàlla subhanahu wa taala <laughs> sacré Dame